boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim sallallahu ala muhammadin bisi fasahati lisaani habli fasahatan wa nawirana haqli wa bi mutaharil janaani lisrahi sadri wa anni kulla durin sasihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaar di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu cheikh Mouhamadul Bachir mi toog a jataayu xaadimu rasul yàlla na ko sunu boroom gën a yàggal te defal ko ak wér gu ànd ak wérle te wéralal ko ñi ko wër kàttanal ko ba mu àggale yéeneem ci lislaam ak ñooñ lislaam te àggale yéene taalibe yi ci moom noo ngi dellusiwaat fas yéene ànd ak yéen ci téere sëriñ Mouhamadul Bachir bi mu def ci dundu xaadimu rasul radiyallahu anhuma nu bëgg indi tey sunu waxtaanu ñaar fukk muy ñaar fukkeel wi bu ngeen fàttalikoo waxtaanu fukkeel wi ak juróom-ñeent xam ne noo ngi taxawoon ci eh, xëtum ñeenti téeméer ak ñaar fukk tey nag nu fas yéene tàmbali ci xëtum ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn insha allahu nekk na ci aji wér ci addis abi hurayrata radiallahu anhu nee na yonneen sallallahu alayhi wa sallama wax na wax na ne kenn ci yéen jëfam du ko musal ñu ne ko doonte yow a yaa rasulallah mu ne doonte mana lu may yàlla muur na ma yërmandeem ja na ngeen jubal na ngeen jigeel dénk naa leen jubal ga jubal ga nekk ci diggu doomu ga wala taxoo leen ak jubal ga jubal ga kon da jot mooy dangeen àgg bun wax na ci téere bu tudd alfathu ne baatub alxasdu dañu koy nasab mooy maskaak yet gu féete kaw li tax nag mooy lañu lay wax ci naxwu mooy lañuy wax ci naxwu ak xiirtal mooy lañuy wax ci naxwu ak xiirtal muy lu ñu la xiir bëgg nga def ko te farlu ca mooy taxoo leen ak yoon wu baax wa te jub yoon woowee lañuy wax saddaada mu di jub ba tey jigéen na ko mooy jigéen ak moom buxaari yu nag wax na ne saddaad mooy ci dëgg maanaam saddidoo mooy na ngeen jubal saddaad mooy jub ga ak jige gi mu wax naka noonu la mooy bu leen ëppal ba ngeen di sonal seen bopp ba loola di leen yóbbu ci yokkat ak ci sàggan maanaam lii mu wax lépp mi ngi dellu ci digg doomu bul sàggan bul ëppal nekkal ci diggante loolu mooy listixaamatu ngir loolu moo tax ñu wax ci li yonneen wax sallallahu alayhi wa sallama mu wax ko kadoon sàkku ci moom ab dénkaane mooy kadoon doon sàkku ci moom ku ko dénk mu ne ko neel gëm naa yàlla topp nag nga sax ci jub naka lii mooy wax jii mu ngi bokk ci waxam yu dajaloo yu rafet yi nga xam ne moom rekk moo ko am sëriñ bi ne radiyallahu anhu wahab lana al qasda fi daarayni na nga nu may yow yàlla ak jub ci àdduna ak ci àllaaxira la mu ci jublu mooy listixaama ak jub ci àdduna ànd ak taxawal ak jaamu yàlla ci xol ak ci móol mooy ci saaxir ak ci baatin ak ci àllaaxira ci meññetam ma moom jaamu yàlla ci waxi yàlla mu kawe mi tatanasalu alayhimul malaaikatu alaa taxaafoo wala taxsanoo alxasaali yu wax na ne lii maanaam wax jii naka tàmm dox ci àddina yoon wu jub wa muy siraatal mustaqim dana woyofal tey jàppandal sa romb ca siraat mi nga xam ne dañu ko tàllal ca kaw jahannama ngir aada ju jëkk jee nga aada woowoon di dox ci yoon wu jub wa fii ci àddina topp sunu sëriñ radiyallahu anhu ne waftax lana kulla baabin kunta faatihahoo li saalixiina min alxayraati yàllaahu yàlla na nga wubbil yow yàlla bépp bunt boo xam ne daa nga ko wubbil gaa ñu baax ñi ci yiw sàkku na ci boroomam kowe na mu jàpp ci loxoom te muy jàppandalal ko mu jëm ci ak jàppandal ndax ab jaam ay jëfam du ko jariñ dara doonte jëf ja bari na feek tasewul ak yërmandey boroomam ak ñeewanteem ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waxe ci ñaanam yow yàlla sa boroom amul kenn ku mën a tere li nga joxe kenn mënula joxe it li nga tere boroomuk farlu farloom nga du ko jariñ dara la mu nam rekk mooy am mu daw moom sëriñ bi ci kaw teggiin yu rafet te yéemu xam na ne yàlla mën na koo jox la muy sàkku ci lu dul jëf dara waaye yàlla dafa togg jaam yi ñu jëf jaam bu taxawul ci jëf la ko yàlla togg tey xemmem yàlla jox ko la nekk fa moom ak ndof la akuk réer ak ñaawuk teggiin looloo tax mu sàkku tawfiix ci yàlla mu may ko jëf yu ñu nangu ak mu dox ci yoonu jàppandal jëm ci yàlla mu jëf-jëf ju ñu sant ngir xam gi mu xam yàlla xam gu mat xam màggu baaxam nga moo réyal xemmem téefam ni mu nekk ci ni mu ni mu nekk ci waxi yonneen sallallahu alayhi wa sallama nee na kuy laaj yàlla na dogu ca laaj ga te màggal yaakaar ja moo tax sëriñ bi ne radiyallahu anhu bépp bunt topp mu tënk wax ja bañ koo bëggal mu ne gannaaw loolu ci ay yiw buntu yiw moom la ñaan yàlla ndax am na ay bunt yoo xam ne aw yiw la wu sell ak bunt yoo xam ne ba tey aw yiw la waaye boo xalemee mujj ga amaana bu mu nekkee ci melow nattu ak melow fitna moom nag daanaka yàlla da koo déey li nga xam ne dana taseeg moom ëllëg ci balaa ak i nattu loolu moo tax yàlla yenkawal ko mu tënk wax ja ak jafandu ci moom te sàkku na jañ loolee ndax ñaan du sànku naka li nekk ci addis imaamu ahmad ibnu anbal te wéral na addis yooyee ka wax xaakim nee na naka ñaan du sànku faw boo ñaanee yàlla jox la kenn ci ñett yii benn mu jox la la nga ñaan ci àddina wala mu dencal la ko ba àllaaxira mu jox la ko walla mu soppi lu bon la la doon bëgg a dal moom yàlla wax na ne ci li dikk ci addis bu wér ana inda zanni abdi bi wa ana maahu isa daani man maa ngi fa sama njortal jaam la mu jort ci man foofa laa nekk ci moom maa ngi ànd ak moom it bu ma wooyee lii moo tax sëriñ bi baril ay ñaanam ak i sàkkoom xamunu kenn te kenn jot li wunu ca la jiitu woon ci gaañu baax ñi ku gën a bari sëriñ bi ak sàkko kenn ku ko gën a yaa xemmemteef wala ku ko ëpp mébét du ci kenn ku jëkk wala ku mujj teyit wuyoof na ko desul dara loo xam ne dagan na mu am ci àddina wala ay tegtalam lu may gis nañu loola loola taxaw ak layam yu dëggu ak ay jëmm yu taxaw ba kenn du werante loola loolee ànd ak bir lëkkool ak i tegtalam lay wax ja mooy sëriñ bi ku bari lu muy sàkku ci boromam la ñaan na boromam lu nekk xamuñu kenn ca ña jiitu woon ca gaañu baax ña ku ko gën a bari lu muy sàkku ci boromam lépp lu mu ñaanit moom sëriñ bi gis nañu ko mu ne feng ndem loola ma def na koo gis ci àdduna la nga xam ne ci àllaaxira la nekk loole gis nañu ci àdduna tegtali loole ba kenn du ko werante ak nangug ñaanamit ci lépp loo xam ne jëm na àllaaxira boroom xel yi seetantal di seet mbir na mu war a deme xam nañu ne gis nañu fii ci àddina lu leen wóor ne mooy am ëllëg ci àllaaxira topp mu ne radiyallahu anhu wasluk bi naa nëx jërus din wag fi naa dalalan watru lanaal jinna wa seytaana yàllaahu nu sóob ci yoonu jub yàlla na nga nu fegal ay rëcc rëcc yàlla na nga nu dàqal jinne ak seytaane yow yàlla sàkku na ci yàlla mu jubal ko ngir aji soobu yoon la gën ci ay biram mooy jub mooy wubbi ay mbiramit moom jub yàlla wax na ne wala xad aateynaa ibrahima rusdahu min xablu jox na nañu yonent yàlla ibrahima ak jubam ca njëkk wax na ba tey moom yàlla di nettali gaa yi xuntima ñu ne rabbana aatina min laddunka rahmatan wa la lana min amrina rasadan yàlla na nga nu dikk yërmande ju jóge fi yow nanga nu waajalal ci sunu mbir ak jub aji soobu yoonu yàlla la muy jëkk-jëkk yi téwoo mooy ak jub ak jub kenn du ko joxe lu ma yàlla gannaaw ab jub nag amaana bu ko dogalee moom jaamukatub yàlla boobee ay gàkk ak rëcc-rëcc mu jóge ci ku koy réeral walif yoon wa wala mu jóge ci ka koy tere mu àgg ci yàlla mu ne moom sëriñ bi na nga nu fegal ay rëcc-rëcc li tax mu nakkiral baatub salalan dafa bëgg mu matale ci baatub dàq gi nga xam ne rëcc-rëcc yépp la ñaan yàlla dàqal ko ko rëcc-rëcc nag bokkul ci dog yoon wa waaye daf lay gàllankoor ba sab dox du gaaw naka ak sonn akuk taayeel ak déng-déngi ak gis sa jëf ak ndéggital ak yu mel nii ci alake noo ngi toll ci xëtum ñeenti téeméer ak fanweer sëriñ bi sàkku naa dàq seytaane yi mu tudd jinne ak seytaane doonte iblis mi ngi bokk ci jinne ba nga xamee ne jinne am na ci ñoo xam ne ay jullit lañu turu seytaane du dëggu ci ñoom kenn du leen wax ay saytaane lañu wante ay kàccoor a ngi ci ñoom ay woy moy yàlla niki nit ñi te seen lor moo gën a jagoo lor nit ñi ngir la nga xam ne dana jóge ci ñoom ci lu yàq xoli nit ñi ak di leen dofloo ak di leen daaneel ay jël ak li nga xam ne yàlla jox na leen ko ci ay soppiku ak ci kaw jëneer gi waxuma la ak woroom tàggatu yi ngir lañu bokkaaleeg malaayika yi ak li nga xam ne am nañu ko ci lëntal ak jaxase ci lool lële aji juddoo ci kaw xam-xamu baatin yu jóge ci yàlla benn yoonu malaayika nekk ca wala yooni malaayika nekku ca war na ci loolu ñu muslu ci lori jinne ak ci lori seytaane ak seenu jaxase ba mu musloo ci lor ci boroomam ci way gàllankoor yi ak way yàq yi gannaawug jubal ba loolu wéyee la sàkku ci yàlla mu kawe mi mu mottalil ko li mu jublu jëm ca ak la mu yéenee taxaw jonn ci ndigalam ya mu joyal biram jëm ci yàlla ak ak tànn loom mu ne wahab lanaa kulla maa naxtaaru yàllaahu nanga nu may lépp loo xam ne tànn nanu ko yàlla ci boppam mooy aji tànn ca cosaan mooy aji tànn it ba faw wante askan na moom yàlla ak tànn ci boppam ci mustafaa ci bindeefam yi la mu ko laaf jëme ci moom du laafuk ku ñu bind ci ka ko bind laafuk teral la goo xam ne yàlla namm na ko ci xereñam ak ngëneelam tànnalu gii mooy li nga xam ne dina xëccoo jagoo ko mooy dana góor góorlu ci jagoo ko ak am ko ñoñ yàlla ña ak ñay tànnee yàlla ci yàlla mi maye ak jagoo loole nag dana daw ci wax yi ak ci jëf yi ak ci biir yi ak ci barab yi ak ci malaaka yi ak ci nit ñi ak ci jinne yi ci tànnal googu yi la yàlla terale doomu aadama ba gënal ko ci lu bari ci li mu ak gënal gu màgg gu fës ngir tànnal na ko mottali koo kii ci mbooleem bindeef yi la sàkkee la muy sàkk ci baatu kullun mi firi lépp dana sàkk ci moom mu def ko mu bokk ci ñuñ tànn ña ña di ñuñ sellal ña tànneef ak mu dëppale ko ci mépp mbir ci yiwam wa feeñal na ci xalaat ji mooy ci wax ji ak wommatu ak bàyyi tànn ak fentam feeñal nga gën a fés ci feeñalam naka nga gis ne moom sëriñ bi sàkkuwul li muy sàkku lu mooy li mu xam xam-xam bu wóor bu jóge ci yonent sallallahu alayhi wa sallam mi tëral ngir ma ne lii muy sàkku ay yiw la yu sell naka yàlla it xemmem loona jaamam yi ci li ñu xame ci ñaani yonent sallallahu alayhi wa sallam ak ñaani yonent ya ak ñaani nit ñu baax ñawoon ca la jëkkoon bu yàgg ak ba mujj ba léegi ñaan yooyee li tax sëriñ bi daan ko ñaan dafa xam ci làmmeñu yónneen sallallahu alayhi wa sallama ne ñaan lu baax la ak yónneen ya ca des jëkkoon ko ak nit ñu baax ña fi jëkkoon ba léegi daan nañu ñaan gannaaw loolu mu ak àkku ñaareel ca la des ci maas gi bëgg yàlla dimbali ko ci ñoom ba mu not leen awale leen ci kaw ngir ma gën a jub maas yooye nag mooy bakkan ak bànneex ak seytaane ak àddina ndax ak dàq mu ngi wéri ci lu bon lu sell loo xam ne dara ci lu baax nekku ca jëmm ji ci boppam mooy lu bon wante loo xam ne dafa boole lu bon ak lu baax nga xam ne ma neef na koo defar ba mu baax ba mu sell boobee dañu koy tàggat ba mokkal ko ci sellal ak ndigal yu baax ak suufeel wetu la bon la nekk ca moom ak doyadil ko ba loolee lépp ci lu bon dañ ci moom ba dara desatu ca mu mujj di lu baax rek walla lu baax rek not ci kawam ba nga xam ne maneef na koo jariñoo maneef a wattandiku lu bonam bakkanub jullit doonul jëmmi lu bon ci boppam moom kay bakkan bu jàppandi lay doon di bakkan bu nooy bu mën a baax bu ñu ko defaree naka lu bon dana rot ci bakkanub jullit ngir ak réer ak moy ak càggante ak gaawtu ci la nga xam ne ñooy ay sababam ya koy waral loolu moo tax mu ne radiyallahu anhu waruddu lana kulla si saabin wa si haranin wa yassiran kulla si taxsiri yàlla na nga nu tàggatal gépp boroomu jafe ak boroomu xoox na nga nu jàppandal lépp lu jafe yow yàlla ndax ab bakkan banul lépp baaxul lépp dafay am ci lii am ca lee naka mu ko waxee ci dénkaane ci wayam yi noo ngi toll ci xëtum ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom benn inna nufuusa naasi fi aqsaami atat salaasatan min al aqsaami nafsun takunu hurratan salima min kulli aybin bil huda maaluma wa baxdaha karimatun ladal ilah kaarihatan lima yajuru aybala wa baxdaha xasiisatun tawajjahat lima yaduru bil mantabahat xurratuha laysa shiraau yaqahu xataan alayha wa alaha taqahu wa yaqahu shira ala alkarima min qaidin liman yasa takrima ama alxasiisatu fa laysat tustara lilxisati allati bi ayunin tura xurratuha nsub li jamihi alambiya alayhimu aska salaamay rabbiya wan mil karimata li xawmin yuminoon bil amali saalihi aydan yutxinoon wan mil xasiisata liman lam limo wa xayra anfusin lahum lam yaslimoo naka bakkani nit ñi bu ñu ko seddalee dikk na di ñetti xaaj xaaj bu jëkk bi mooy bakkan bu gore bu mucc ci ayib yépp muy bu ñu xam ci jub gannaaw loolu mooy bakkan bu tedd fa yàlla bakkan boo xam ne sib na lépp luy bijj ayib bi kuy fo gannaaw loolu mooy bakkan bu bon boo xam ne la koy lor rekk lay jublu yewwul ci jub bakkan ba nga xam ne as gor la kenn du ko jaay mukk ak a jënd ndax ak koweem wér na bakkan bu tedd ba nag moom la yàlla di jënd mooy kay wommat teraanga jëmi ci ku ko soob wante bakkan bu bon bu sobewu ba kenn du ko jënd ngir bon nga nga xam ne bët bu nekk dana ko gis bakkan bu gore ba nag mooy bakkanub yonneen ya yàlla na nekk ci ñoom yaari xiwali yàlla yi nanga askane bakkan bu tedd boobee jëme ko ci jullit ñi ngir jëf ju baax ja ñuy def na nga askane bakkan bu bon boobee jëme ko ci yéefar yu tuubul waaye tooñuñu kudul seen bopp bakkanub jullit moom def koy tàggat te wàcce ko teg ko ci yoonu jub di yoonu baax ak yoonu sellal ba mu miin ko ba sax ca bu ko defee bakkan bi dal di sell te texe bànnee xamit naka noonu la def koy tàggat ba mu topp ca la nga xam ne mooy ngërëmul boromam mu kowe mi ba bakkan boobee womatu bay bànneexu ci topp yàlla ak déyaaleeg yàlla mu wuutu coono ba mu ci daan am naka noonu àdduna def koy war jëm àllaaxira ak dee fi ko bay di ko góobe àllaaxira mbay mi nag mooy jëf ju baax ju rafet ak wërsëg wu dagan lu teey fuñ la ko waxe mooy lu dagan yàlla nee na yonneen xul man xarama siinata allati axraja li ibaadihi wa yi mi min risqi ne ko neel kuy araamal rafetalu yàlla gi nga xam ne génne na ko ngir jaamam ñi ak wërsëg wu dagan wa mu leen jox loolu kay du ko araamal ndax yàlla daganal na ko nekk na ci waxtaani Amru ibnul Aas ci xeex boo xam ne yónneen moo ko ci yónni woon sallallahu alayhi wa sallama nekk na ca lenn ci mbooleem la mu ko wax ni'mal maalu saalix li rajuli saalix alal ju baax baax na lool ci waa ju baax gis nga dëddu gii mu dëddu kudul yàlla akub yónneentam ak alaaxira yu dul yett yii sëriñ bi daf leen a dëddu woon amul ci ñoom aajo daan na ñaan yàlla mu may ko mu dëdd lu dul moom di sàkku ndimbal ci moom ci loolu te muy dugg ci te muy dogu ci jublu ci yàlla ci léppam daan na ñaan yàlla mu fegal ko ñiy dog yoon yi ak ñiy yàq jëf yi ba doo mën a àgg ci yàlla mu ne wa dammiran kulla ahda in tuddi rubbina xablal wusuli lana yàllaahu yàllaahu yàlla na nga nu alagal bépp noon boo xam ne dana nu lor njëkk balaa agsi ci nun yow yàlla yow yàlla lay wax sange woo na ci ñaan ak woo boroomam li tax mu woo ko yaar yoon takkaraar woote ga dafa bëgg ndimbalal yàlla gaaw a agsi ci noonam ba yàlla dammte leen alag leen li tax mu waxe ko nii mooy bëgg yàlla faagaagal leen ba ñu jeex rey leen ñoom ñépp ngir mu wolu seen ay ba mu féex taxaw bu baax ca la muy jublu di ko sàkku gannaaw ba mu waxee ne tawil lanaa xumranaa saxih lanaa badanan wahab lana rusda wa tawfiqa yow yàlla yàlla na nga guddal sunu dund yàlla na nga wéral sunu yaram yàlla na nga nu may ak jub ak tawfiq taqale na ci baatub yàlla na nga nu tàggatal lépp lu jafe mooy warud lanaa kulla si saxbin li tax mu def ko mbir du mat ci la gën a bari waxuma laa ku xëre ni moom ci baril aw yiw lu may aw fanam gudd ci topp yàlla ba ay jëfam yu baax bari lool topp tax waayam yàgg ci jaamu yàlla ci këru togg gi muy àddina nekk na ci téere addis bu tudd tirmisi yi am na waajoo xam ne laajoon na yonneen sallallahu alayhi wa sallama kan nit moo gën mooy ka gën ci nit ñi waxaala fa xaala man taala umruhu na asuna amaluhu koo fanam gudd tey jëfam rafet mu ne addis bu rafet la bu wér la it du mën a jàppandi taxawal ponki jaamu yàlla ak i màndargaam lu may ko koy def ànd ku wér ngir dogug biiram bañ a yàqu di dog ndax sa moo di jàppandal ak woyofal kenn waru koo dikke lu may ci biir yoo xam ne dañu koo séddale ay xaaj mën ngaa def lii nga xam ne lii moo gën a baax soo ko mënul nga def la fa sës naka war ngaa jàpp booy julli boo ko mënul nag dooratiim li tax ñuy def ak sa nag mooy feeñal sag aajo akuk lot akuk lottu ca mooy bëgg a jàpp te mënuloo ko waaye du ngir tayeel walla gàttañlu li taxawe lii ma wax lépp mooy jub naka ma ko waxe woon ca gannaaw ak tawféex jub koo xam ne ànd na ak tawféex lii njaal bennu tawféex mooy gëm yàlla ak wuta jëm ci yàlla la dig matam nag mu mat sëkk mooy ak jub yàlla nee na ci alquran balillahu yamunnu aleykumu an hadikum lil iman déedéet yàlla kay moo war a damu ci seen kaw moom mi leen jubal jëme leen ci gëm yàlla fekk na booba yéefar yi dañu doon ñaax yonent ci seen tuub ga ñu defe ne defal nañu yàlla dara yàlla ne ko seen tuub gii defalu leen ci yàlla dara yàlla kay moo leen defal xéewal gu rëy moom mi leen may ngeen tuub ku sàkkoo jub jëm ci yoonu yàlla bu jub wa war naa musul ci yàlla mu musal ko ci dokkati yoon yi lii tax mu teg ca wax ji wa dàmmiran ku la ahda in tadiru bina albayt yàlla na nga alag bépp noon boo xam ne dana nu lor balaa agsi ci nun ba woy wa daanu ku jafandu ci yàlla su kookee musloo kooka yàlla jubal na ko jëme ko ci siraatal mustaqim mu yoon mu jub ba yàlla santaane ko ko topp bayit wii nag wax ju gàtte ngi ci ju rafet ju lottuloo waxkat yu bari ngir ni mu gàtte ak ni mu rafete ak dajalee ngi ci gu rëy xam nga bu baax ne ku ñu jubal ci siraatal mustaqim mu nekk ca su ko yàlla musalee ci way gàllankoor ya nga xam ne ñooy tee àgg fa yàlla kon kookee texe na dëgg-dëgg kookee ma nga ànd ak ña nga xam ne yàlla xiiwal na leen naka nekk ci fatiha xayril maxdubi alayhim wala daalin waxam jam wax moom sëriñ bi radiallahu anhu ne yàlla na nga alag bé ba bayit wa jeex jóor na ci la nekk ca laaya ja tàqalewu ko wante la ca laaya ja rekk la jublu jubluwul leneen topp sëriñ bi tàmbali di muslu ci boroomam ci musibay àddina yi ak i balaam feeg mi ngi dund ngir li mu nekk di ku ñu gaaral xew-xewi àdduna yi ndax kuy dund la lu nekk la lii nag ak jubal gu jóge ci yàlla lii mu ñaan yàlla moo ko ci xiir moo tax mu ñaan ko ngir yàlla tofal ci ak nangoom muy ngëneel lu jóge fa yàlla ak xereñ mu ne gannaaw loolu yàlla nanga nekk yow yàlla di ku nuy musal ci jépp alkande wa kun lanaa haasiman min kulli mahlakatin wa jinaa min balaayaa dahra yàllaahu yàlla na nga nekk yow yàlla di ku ñuy musal ci jépp alkande na nga nu musalit ci balaab jamono ji yow yàlla na nga settantal mbóot mi mooy sirru bi ci ñaari xalaat yi mu def ci wax ji bu jëkk ba mooy sangewu ci alkande yi ba dara ci alkande du mën a ak fii ci moom ak mucc ci alkande yi ak balaa yi ndax naka wàlli yu yi ñu ñu wattu lañu ci alkande ndax lii dëgg-dëggi alku mooy yàqu te yàlla bëggul yàq te wàllu yi yàlla da leen a sopp ñu sopp ko ñoom ñaar ñi ngi ci yaar wet yu safaanoo ndax soppante ak alagante yaar yëf lañu yu féewoo loolu ci la xame xamee ne wàllu yi ñu ñu musal lañu ci alku ndax ñu ñu sopp lañu te yàlla du mbugal ab soppeem loolee moo tax mu sàkku yàlla musal ku ci jépp alkande ndax nangu ñaan lu ñu tofal la ci sàkku boo sàkkoo ci yàlla dara yàlla def cay tofal ak nangu xeetu ñaan nga it mooy doon xeetu nangu ga na ñaan nga mel rek la nangu ngay demee ci baax akuk sell sàkku na yit ak mucc ci balaa yi ndax ñoom wàlliyu yi du ñu jóg ci balaa ndax yàlla nee na ci alquran li yabluwakumu ayukumu ahsanu amalan ak waxi yonneen sallallahu alayhi wa sallam jamu ne ke leen gën a metti balaa mooy yoneen yi topp ko gën topp ko gën ku la gën rek moo lay ëpp am nattu wante yàlla dana musal gannaaw nattu boobee way gëm yàlla mooy jullit ña moo tax yàlla ne war na jëy naa lësina amano wa kaano yattaquuna wa kazalika nun jil muminina sadaqallahul asim kon noo ngi taxaw fii ci waxtaanu ñaar fukkeel wi ci xatum ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar di seenu nag waxtaanu ñaar fukkeel wi ak benn insha allahu taala min boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés bind abone bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo